ñu dem ci l'observateur li mu xëyee Apulaay tey ci xëtam njëkk bi tey ci aljuma ji yem ñaa fukki fan ak juróom benn ci weeru mai l'observateur assemblée nationale question euh, sans réponse muy ay euh, laaj yu tukkee ci ay député ak ay leeral euh, tukkee ci ay ministre ak arbitrage ay acteurs page 4 5 ba 6 ci journal bi les mises en garde des ministres Karim Fofana et Sidiki Kaba à Sonko loolu lépp mu ngi ci biir journal bi et puis ñëw na ci benn tamit ci participation plutôt ak opportunité euh, For Afrique les grands espoirs et attentes de jeunes artistes ak fonds de développement des cultures urbaines et des euh, industries culturelles et créatives mi nar dem ba egg ci benn milliard euh, ci sunu ay koppar et toujours dans le domaine de la culture musique comment le mythique Xalam 2 prépare son retour sur la scène internationale am na ay anecdotes yu leen ci l'observateur jagleel ci page 9 la nekk benn enquête bu sunuy naataango xëyee tey muy li ñuy duppee lifting colombien ab benn astuce la waaye bu mën a am ay njeexital yu bon a bon ngir fay ay soxna di ko jëfandikoo ngir xaj na euh, gën a taaral seen bopp ak euh, yu ni mel yokk wang yeeg xeet yooyu les risques d'une opération à vie et puis tàggat yaram football chan le rapport de la Cour des comptes euh, diffère le paiement des primes des locaux c'est à lire à la page 12 du journal ñu dem appulaay ci record bu dee egsi na record ak li mu xëyee tey jëlee ci aljuma ji moom tamit euh, voilà euh, Lyon instabilité à gauche sous l'ère Cissé Jacobs et Abdallah les nouveaux tenants point d'interrogation euh, ba tey ci wàllum football mercato Mourinho attend un signe ça bouge sur le banc du PSG mondial U20 yi seen mot at amagu motagul ñaar fukk deuxième journée bi Gambie moom décroché na qualification am Basketball Africa League Cheikh Diop moom mi jiite AS Douane nag nee na li ñu bëgg mooy remporter le trophée Abdourahmane président euh, Besport nee na des clubs européens sont sur euh, Serigne Fallou Diouf muy ay xibaar yu ngeen mën a lire ci biir record record ak l'observateur les deux quotidiens yi groupe Futur Média di édité alors euh, tout de suite dañuy jàll ci météo express ak Oumy Samb